Radio Biri di RFM di len jot li di len yegal mbir mu doy war mo xamne mi ngi xew fi ci Touba ñu bëggen ñu bëggoon ko yegal euh sakku ci seen ndimbal ndax mbir la mo xamne ñun ñi nga xamne ñun la ko yalla tek suñu kaw de liñ ci man lepp def nan ko ba lu ci ñeneen def sax nak waaye mu upp ñu doole lool euh, ñu ne won danañ ñew ci émission bi di xalaas sàkku ci moom mu jàllale ko ngir doomu aadama yi nga xam ne yàlla may na leen ak xam ak man ci wàll wi nga xam ne moom la ñu yàlla nattoo mbir mi nag ak lakk la goo xam ne day dikkal euh, sunu benn mag bu jigéen boo xam ne mi ngi dëkk ci Touba Daarul Minnan kër gi ak doomam bu jigéen akub sëtam lakk gi nag depuis daaw mi ngi koy dikkal waaye daan def rek bu ñëwee di lakk ay matériel am lu mel ne armoire bi ci néegam ay matlam ay yere yi muy sol ak ay yere doomam euh, mu def ci ay ñaan nak fu xam fu ne dem nafa euh ñu dem bam mu yef yi melne lu euh arrêté ñu yaakaar ne jeex na waaye bi muy nim delu ci waté mo metti ndax lu mat wër ci gannaaw rek dafa jékki lak gi delu ci anam gu doy euh di setem setem setam setam setam bu goor bi nga xamne ne doomam ju jigen jim nekkal fofu moko ko jur euh, ni muy ñëwee ci moom nag mooy dañuy rek seen yi di ci kawam di tàkk ci kawam yére yim sol di tàkk ci kawam bi ko defee ñu sotti ko ndox yóbbu ko ci dispensaire bi ci 28 ci Touba ñu defal ko ay soins delloosiwaat ko ci kër gi deuxième jour bi mu lakkaat comme noonu mu lakkee woon ñu jékkee rek lañ ko lëmasee woon daal di tàkkaat ci kawam une deuxième fois euh, ñu yóbbuwaat hôpital defalaat ko tamit soins yi ñu ko defaloon di faj di ci moom di ko bàyyi xel boobu ba léegi nag ñu ngi koy faj waaye lakk-lakk yi dafa xawoon a jéggi dayoo lool metti woon lool. ba tax na amoon nag tan sax waaye du lool lool euh, ñu solaat suñu ay daal tamit fu ñu xam dem fa lu ñu xam wax ko waaye nag ba tey taxut mu saafaraw tey jii ci. Euh, mi ngi tolloo ak douze mai dimanche du dimanche douze mai ci weeru Ramadan ci la lakk gi ñëwaat ci ay boori onze heures lakkaat ko ba gaañ ko lool fi mu nekk nii bi ko yóbboo ci hôpital bi ñu ko daan yóbbu sax dañ ko jàllale ndaamaatu ñu évacué waat ko delloo ko jannatu euh, hôpital Matlaboul Fawzeyni bii nekk ci Touba actuellement fi la xale bi nekk. ñu ngi doon sàkku nag seen ndimbal ku ci xam loo xam ne moo ko mën a saafara ci wàllu mystique wala ku mën a dimbali ay waajuram ak i mbokkam ci maanaam wàllu côté social ndax lim amoon lépp ci alal def na ko ci te teewul ba tey li ko ci waroon mi ko ciy war te aji néew doole la joo xam ne yàlla dogal na benn loxo la te uh, amul ko ko jàppale ci ku ko jege ñi nga xam ne ñoo ay mbokki boppam liñ ci man lépp def nañ ko waaye nag lii yàlla dogal moo tax ñu ne woon dañ leen ko yëgal rek bu ko defee lu ci waay man te yàlla rek tax incha allahu taala ñu leen ciy tàllal loxo ci wàll yëpp nag ku ci am xam-xam ku ci am man-man ku ci am xalaat xeebuñ dara ah, ñoo ngi dëkk fii ci Touba Mbacke Touba Daarul Minnan ci pencum sëñ Basiiru mi rek seen kéemtalaayul kàttan incha allahu taala ñu ngi ciy woo def kat lu baax yëpp rek ku ci man dara nga nga dimbali ko ndax xale la boo xam ne kat ñaari at bu ko amee la ca topp bëriwut te yëf yi na ko lool lakk na ci kawam ñetti yoon te lu jiitu loolu lakk na alali maamam ak yaayam seeni i yére ak seen i ay euh, lépp loo xam ne amoon nañ ko kom matériel euh, yëf yi dafa xaw a ëpp doole daal ñi nga xam ne ñoo ko si